alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqillah muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi din mbokk yi waa sénégal asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, fa tabarakallah ñi ngi nuyu waa réew mi yëpp ñu nuyu kilifa diine yi di nuyu ñi nga xam ne ñooy kilifa aada yi nekk ci réew mi yëpp tabaarakallaahu mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ci réew mi maa ngi leen di wax baat boobu nga xam ne moom la ñu yàlla boole ñun ñëpp muy baatu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu nga xam ne ëmb na jàmm moom nuyoo boobu ëmb na yërmande ëmb na barke ëmb na njéggal moom nuyoo boobunte moo tax léeg-léeg jar nay bàyyi xel ba biir aljanna nag kenn du nuyoo foofu benn nuyoo bu dul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kenn du fa nuyoo bonjour kenn du fa nuyoo good morning yàlla daal jàmm rek la bëgg mbokk yi moo daal baatu asalaamaaleykum na ngeen ko bàyyi xel bu baax waaye ñi nga xam ne it ñooy fay nañ bañ a wax rek maaleykum salaam nañu wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu nax yàlla kat moo wax ci alquran ne wa ida uyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha dëgg-dëgg daal buñ leen nuyoo na ngeen fay nuyoo bu gën a rafet biñ leen nuyu wala bu tolloog sax biñ leen nuyu moo tax nit ñi fe nit fekk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko assalaamu aleykum yonent bi ne kii de yàlla bindal na ko fukki ci keneen ñëw ko assalaamu wa rahmatullah mu ne kii de yàlla bindal na ko ñaar fukk ci tuyaaba keneen ñëw na assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu ne kii am na fanweer moo tax di yegg it ca njombaxtan lu nuyoo def doon loo xam ne loo am solo la kon nañ ko bàyyi xel suñ bëggee réew mi am jàmm rek nañuy faratal nuyoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toogoon bis mu ne yéen kenn du dugg aljanna ci lu dul ne da ngeen gëm yàlla waaye du ngeen gëm yàlla mukk lu dul ne da ngeen bëggante kaay leen ma wax leen benn baat boo xam ne su ngeen ko wisaaree seen diggante da ngeen bëggante ñu ne yonent bi lan la mu ne afshu salaama baynakum na ngeen wisaare siiwal nuyoo ci seen diggante yi moo tax daal dëgg-dëgg mbokk yi kon baat boobu rek laay tàmbalee waat di yéen réew mi yëpp jàmm nag fa tabarakallah di la wax rek ne tey nag euh, suñu thème ñu ngi ko jëmee rek ci ñaari way dencante nga xam ne mooy ku góor ki ak ku jigéen ki xam nga euh, aaday dencante moom góor ak jigéen rek ñoo war a dencante euh, góor ak jigéen ñoo mën a dencante waaye góor góor mënu ñoo dencante ñi war a dencante daal ci suñu diini lislaam mooy mbokk yi góor ak jigéen ñooñu daal mooy ñi nga xam ne ñoom lay yàlla wax yàlla nag ne yow mii góor may naa la nga takk ba ñeent waaw ah, xam naa jigéen ñi nag danañ ma xaw a mere waaw ah, waaye daal yàlla nee na woon fankihu ma taaba lakum min annisaai masna wa sulaasa wa rubaa fa in xiftum allaa taadilu fa waxidatan aw ma malakat aymanukum yàlla nee na woon su leen neexee takk leen ñaar ba mbaa kon nag fa tabaarakallah ah ñaanaluma kenn mujj nag wax dëgg yàlla xam naa benn rek léeg-léeg mën naa baax sax ci yi nga xam ne comme man damaa bari ay xariti aawa nag te sama xarit yëpp nag ña ñu nekk ak benn lañ fa moo tax daal dëgg-dëgg du ma ñaanal kenn mu am ñaareel waaye yàlla nag am lu mu doxal ci diggante bi xam nga tëkk sëy du farata takk jabar du farata waaye sunna la waaw maanaam nit mën naa dund ba dee te bu ko neexee takk jabar nit mën naa dund ba dee te su ko neexee takk soxna te du ci am benn bakkaar dana tax nga yokk xeetu yuntu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ah fa tabarakallahu nit ki nga xam ne moom la yàlla jox cër mu dem takki te am yu ko war balaa sëy ba jigéen nga di ko dagan am na nag lu yàlla bëgg lu yonent bi wax xam nga sëy tey balaa am na ngeen xam ne am na ay préalable am na yu jiitu ay priorité man duma tëb rek gis jigéen gi ne bëgg ko rek dem rek ne ko sama jabar la déedéet xam nga yeneen bi bi muy takk soxna Xadijatu bi mu koy takk fanu jaar yëpp ba Xadija jël yi mu jël ba may sara dox ci diggante ba nafisatun fa dasisun gayru mutahin moo doon la nga xam ne moo doxoon diggante Xadija ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko takkee gis nga amoon na lu dox ci diggante bi laata mu koy dagan mooy can moo koy can dafa am solo ci ab sëy bu amul rek sëy amul can can nag du xaalis rek mën naa nekk lu ne mën nañ koo leble it man nga wax ak ki ngay seq ne ko lebal ko waaye nag même boo deewoo nit fi mu toll nii bala ñu miraas dañu génn pay pay boobante nga xam ne mooy can moo tax can yonent bi buñ la laajee can ga mu diggante ma Xadija ne ñaar fukki gileem la ñaar fukki gileem moom la joxoon soxna Xadijatu waaye Xadija nag nekkoon jigéen bi baaxit nag laata sax yonent bi di ko takk amoon na ñaari borom kër moom soxna Xadija waaye gis nga bi ko yonent bi takkee am nañ lu tolloog juróom benni doom fa tabaarakallaahu juróom ñaareel ba ki ko jur mooy tabaarakallaahu eh, kooku nga xam ne eh, égyptienne bi di Mariétu tëkk fa tabaarakallaahu waaye Khadija moo jur ak yeneen tibi ki nga xam ne mooy Zeynab Khadija mu jur Roqiya Khadija mu jur Umu Kalsum Khadija mu jur fa tabaarakallaahu Fatima Fatima mi nga xam ne yeneen ci bëggoon na ko lool te moom bàyyam ñu rawante juróom benni weer waaye Khadija yi moo jur ki nga xam ne mooy Abdullahi xadija moo jur xaasim kon kenn la jur mooy ibrahima moom dong la jur ki ko jur mooy maariya moom moo ko jur moo tax sëy booba it dafa amoon can même yuttu yàlla aadam bi mooy jël ak xawaa mu doon soxnaam dafa am can kon mbokk yi na ngeen di bàyyi xel can sëy bu mënti doon day am can can ga nag bu bu la gën a néew li yonent wax mu nee na moo la gën a barkeel moom sallallahu alayhi wa sallam ah loo jigéen loo ko may baax na après cat gi nag bu la neexee may koy milliard jigéen moom ku koy jël nag war ko indi sa kër war koo mën teral nag loo ko jox nag na ko xeeb te bul ko yéem te na ko fàtte bul toog bés ba ne ko yow kat ba ma lay jëli nangami milliard laa defoon ci yow déedéet bu ko ko wax ndax am na lum la joxoon lu ëpp milliard yooyante kon nag ñu ko mënti doon na nga bàyyi xel loolu kon cal dafa am solo ci ab diggante góor goo xam da ngay jël jigéen bi ci topp mooy seede yi maanaam lu minimum na am ñaari seede yoo xam ni dañuy taxaw seede siiwal na ñoom fekkee nañu diggante bi bañ koy fas beneen bi ci des foog mu am kilifa kilifa sa bàyyi mu ci jiitu bi la jur wala mu bàyyeele mu jox la keneen ne la kii laa la bàyyeelee su fekkee bàyyi dundul sax yaay bi du sañu may fekk mu seet gën góor mu jox cëru kilifteef gi kon na ngeen xam ne diggante góor ak jigéen balaa lenn di am ci seen diggante foog condition yi rempliru ba noppi bu boobaa nag góor gi nag gi nga xam ne mooy jël ku jigéen ki na xam ne am na ay devoir yu ko war digganteem ak soxnaam jigéen gi am na ay devoir yu ko war digganteem yooyu nag ak kenn ku ci ne droit yi nga am ci sa morom moo tax relation bi complémentarité lay doon dañuy mottalante ci seen biir moo tax lu ngeen mënta lijjanti ci seen biirum néeg léeg-léeg pour mu lijjanti ko ci biti day jafe moo tax ñaari way dencante toujours ñuy trouver jéem di trouver ci seeni problème ay consensus ndax nañuy xalaat tàkkusaan ga kilifa yu toogee ca jàkka ja wala ca kër ga ñoom ñëpp bàyyi seeni itte ñëw toog ngir ne diw may nañ ko diw ci farata si yàlla ak sunna si Muhammad gis nga Xadija biñ ko may yonent bi sax dafa kontaan moom ma ngay digal jàmm mais naa leen fekk leen moo tax sëy dafa sacré dafa sacré ci l'islam koo xam ne daganu la woon lawu la woon ñu ne lu bis ni ko tey lew na la ko takkee takku saa ni suuf man ngaa dem fanaani bu la ndax lew na la doom lu tonni nit doomu aadama yàlla préparé ko ba bés ñëw mënu la jëlal di yóbbu sa nga koy yóbbu te boo ko yóbbee lu ne sañ ko xekki moom moo tax jigéen googu góor di ko war a yërëm góor da ko war a xormal góor da ko war a wekk góor warul toroxal jigéen jigéen war na fonk borom këram moo tax yàlla ne seen diggante mbëggeel ak yërmande laa fa def wa jaalna baynakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun yàlla nee na diggante góor ak jigéen ñaari yi bu fa ñàkkee dara amtu fa waaye mbëggeel ak yërmande su amul ci ak diggante dara amtu fa moo tax mbokk yi yéen ñii jël soxna yi ak jigéen ñi yéen ñi nga xam ne yéenay sëyi ci góor ñi na bàyyi xel loolu jigéen day bëgg borom këram wan ka ne ko bëgg naa la di ko woyee tur yi ñu wootee lee papa chéri ay bourchou xaw ma xel yooyu te xam nga man xaw ma ko léeg-léeg rek am yun ma ci wooyee wax tabaarakallaahu waaye góor na sagal soxnaam di ko wooyee yu rek yu neex yooyu rek xam ngeen ko yéen waa réew mi te yooyu yëpp l'islam da koy validé l'islam du ko dàq ndax koo warul wooyee baat bu neex soo ko wooyee baat bu neex dana am nu la bàyyee xel xam nga lislaam bu ne la dóoral sa soxna bu fekkee gàddaayal waxtaanal dóoral sa soxna tawaay bu ko gaañ mooy maanaam jigéen gi dana ci jàngee ne yow mii jëkkëram mënoon nga koo dóor ba gaañ ko waaye bant bale bi nga jël di ko ci mbir ke danaan kii daf ma bëgg waaye bu ko neexoon tey man na maa lor voilà day yokk cofeel dana ah kii daf maa bëgg de waaye bu ko neexoon tekki seen tiiram wala mu def beneen loo xam ne dana ma gaañ ndax am na ci sëy yu bari waaye loola it lislaam santaane ko kon nag na ngeen xam ne daal mbokk yi tabaarakalaaw jigéen ñi ah yéen fa tabaarakallaahu lii Serigne Babacar Sy waxoon rek yéenay pendal mu gën tubay lu ngeen baaxam mu baax lu ngeen baaxulul nit du man baax yéen a man ci gàmmu yi yéen a man ci daayiri yi yéen a man ci màggal yi yéen a man ci lépp yéen jigéen ñi kon daal dëgg-dëgg na ngeen xam ne sëy daal dafa doon loo xam ne jigéen day fonk borom këram waaye borom kër it na yërëm soxnaam kon nag incha allahu taala émission yi day continuer xàq yi war góor ak jigéen ana nan la war a def ci yor soxnaam lan la ko la sant ci mu yore ko soxnaam jigéen ana lan moo ko war digganteem ak borom këram ana yan xaq moo war ci diggante bi yi war jigéen bari na lool yi war góor it bari na lool te yooyu yëpp tey sëy yi problème yi mu indi yëpp mooy ni nit ñi dañ ko réeré dañ koo xam mbokk yi kon bu ngeen ma toppee rek ci yi ca topp incha allahu taala danañ waxtaan ci yooyu yëpp xaq yi war diggante góor ak jigéen góor lan la war a def yore soxna jigéen nan la war a nekkee borom këram fa tabaarakalaa njaboot gi ana nan lañ leen war a yare nan lañ leen war a éduquer ndax nit dund na ba dee te yàlla dénk ko doom kon soo dundee ba yàlla dénk na doom na nga fexe ba xam ne loolu responsabilité bu rëy la kon dañ laa dénk na la yaral dañ laa dénk na la éduquer inculquer ko xam-xam muy xam-xamu diina war a jiitu ci moom ak yeneen xeetu xam yi nga xam ne mën na koo jëriñ ci wàllu addinaam du ma jeexal nag émission bi te santuma fa tabaarakallaahu eh, ki nga xam ne mooy eh, sama jigéen bi sama xarit di sama sëriñ di soxna Mariama Sy madame Dieye fa tabarakallahu sant sëriñam it bu baax sëriñ Moustapha waaye di sant bu baax sama xarit bu baax bi sama caméraman bu ñaaw bii nga xam ne fa tabarakallahu mooy sëriñ Taala mii nga xam ne man ku gën ngir taxulaa bon ngir Bienvenue sur Salam Vision.